amee ku leen bëgg bëgg leen quoi ah, góor yombatul de góor gu baax yombatul ma ni katta leen seen dugg la fa nday ngeen tapatata gaaw maam Ndiaye sabon xoolal damaa ne ci vacances fan yii yëpp bëgguma live dama nekk ci vacances mais danga maa tooñ danga maa tooñ parce que man bëgguma kuy yàq diine ji maam Ndiaye dangaa jug ngir saboote diine ji barki dem moo njaay lañ ma woo jox ma say preuve sa sëy bi katt na diggul la fa bu yàgg li tax sa sëy xam naa ko maaka bëggul woon a wax li tax sa jëkkër katt sa diggul la fa ndey fase la maam njaay maa ko yëg maa xam waaye maa noppi woon comme nag yaay sabote màggalu sëñ fàllu galas baayu mbeen baayu bës ak baara maami danek seex dina toj sa cotu ndey toj sa lëfal nday jël ndayu Espagne dugal ko ci sa data yaay Mariama Traoré Mariama nag ma jéggal bëgguma laa saaga nday Mariama Traoré waaye sa doom jee kat lëfal ndeyam li nga def dafa ñaaw maam Njaay li nga def dafa ñaaw li nga def dafa salte lu toll ni màggalu Kazu Rajab nga yóbbu ay góor jigéen ñu accompagner la waxuma la dara yow waroo dem sax Touba yow naan da ngay màggal ndax yow xeesal ngay jaay yàlla da ko tere dafa xaraam xeesal baaxul moom ngay kat sa diggu la fa di ko jaay xeesal nga fi jaay ba yóbbu sa baay màkka sa papa moo bon maam njaay sa baaya bon sa baay amul xaalis bu muy demee màkka lu dul xaalisu xeesal maam man soxoruma mais xaalisu xeesal dafa daganul warul dugg Tuubaa sénégalais nak dañu naa féq gis na la nga tilimal sa der ba nopi di tilimal deru mami Cobra yow mosoo bëgg mami Cobra mami dala raw mo la gën ci nday mo la gën ci bay mo la dak liggey mo la ëpp alal li ngay wone ni mamé la ko té béré ci ñu yoon waye du ko def nga organiser sa magal kas rajab wo mami góor jigéen ñi dar mami mami man dama laa bëgg duma saaga sama nit mais kontaanuma ci yow Cobra li nga def ci màggal gi ba nga demee ci màggal gi xam ne Mame Ndiaye Savon ay góor jigéen lay àndal danga waroon a génn ndeyu màggal gi xam ne lii nekkatulu màggal lii kenn xamul lu mu doon màggalu góor jigéen lii baa jàmmala Mame Ndiaye Savon ay màggalu góor jigéen waay waay Pape Ndiaye ça va ay màggal yoo xamante ni la nga fa war a lekk yow ci biir màggal gi ay homosexuel ñoo ko togg ay góor yoo xam ne dañuy juutu ñu leen di katt ci bun maam Ndiaye nga jëwul nga nga ni danga bëgg sëñ Fallou yow yow nga ni da nga bëgg sëñ Fallou ba tuddee ko doom yaa toj sa tuunu ndey bul wax ni danga ngaa juum de juumuloo yaa ko tey da toj sa cotu ndey awul sama amoore neewoon na ma soko man ko naam mun ma bàyyil maam Ndiaye Savon ba ma jox ko sama kàddu waaye li nga def nii man xam naa ju koy awus su ko déggee duma ma mere te man bu ma ñëpp a meree bu ma awus merewul rek garaawul comprendre nga ku ma mere rek man bu ma awus merewul cottu ndeyam laa ci lijjantiwul yaa ngi may dégg te awus doful dina jàpp ko dinaa couper sama direct bi ndax dama am sama des choses à faire damay am yu may lijjanti balaa may laay faat dinaa woo awus kiti du Dubaay wax ko li nga nekkee ci dëkk bi yaa ngi dégg man bëgguma réer ak awus woo na ma wax ak man ay heure yu bari ne ma soko bëgguma man a yow ñu am problème te sama xulloog awus kiti loolu la Sénégal yëpp yàkkamti képp ku ko yàkkamti nag xamal ni yow di nga fi noor newet fi te duma xulloog sama amoore maam Ndiaye Savon doo ñëw kat sa lëfal nday def say bon téef ba sa jëkkër ji fase la da ngaa mu ngi nii da ngaa divorcé yaa ngi dégg danga ngaa divorcé ba kat sa diggu lëfal nday yaag joor jeey caga pari yéen a yem da ngaa divorcé maam Ndiaye Savon léegi nag man sama amoore doo ma ko yàqal yaa ngi dégg dooma ko yàqal li nga def moom sénégalais yëpp gis nañ ko waaw sénégalais yëpp gis nañ ko su ma waxee amoore dinaa ko xamal ni ko nag guerre bi mu ngi doog a commencé dinaa wax ak awuskiti ba convaincre ko ñu ñëw toj sa cot ndey dinaa ñu ñëw toj sa lëfal ndey sama mafia bi waa aala yaa bi ñëpp ñu ñëw ñu kat sa ndey maam Ndiaye Savon parce que yow kat sa ndey kat sa ndey loolu dafa jot toj sa cot ndey loolu tuyaaba nga ciy am tiyaaba laa ciy am incha allahu rabbi li nga def ñaawlu naa ko trop sénégalais yëpp ñu ngi koy katt lëfal ndeyam di ko ñaawlu parce que ay góor jigéen ay homosexuel mbaxal ji de xaaral ma wan leen xaar leen est-ce que jar na wane parce que sénégalais yëpp gis nañ ko ah hmm. maam Ndiaye xam nga su ma daan kat sa ndey sénégalais yi ah dañ may wax naan man sa ko yow dangaa bañ maam Ndiaye ni waaye bii moom su may kat sa ndey ñëpp may kontaan ci man gars yi baatare leen ma max gars yi xam ni kontaan ngeen ci man maam li mu def moom dafa ñaaw lii moom am na argument tey laay toj sa tot ndey ci argument tey laay dëgg sa ndey ci xam-xam tey laay fulli sa lëfal ndey ji bu ma tawee sa coppertu yaay bi dinaa ko xëcc ba mu taweeku ba mel ni train Europe ma def ko bërital takk ko fii mu wàcce ma jàpp sama tubay maam dinaa katakatee sa diggu data nday ja ay chaise roulante di ko roulé di ko roulé di ko roulé di ko roulé ba ci sa biir sa biir data nday bi ma teg ko fa maam Ndiaye sa doxatu nday sa doxatu nday sa doxatu nday sa doxatu nday sa doxatu nday sa doxatu nday jaay di ko aw ay waay teente ne tey lay katt sa nday ñëpp ciy ànd lu tubaab li li arab naan muttafaqun alayhi man lislaam laay xeexal nag maa ngi doog a xeex lu ko jar maam bi ma dalee katt sa nday ba léegi maa ngi doog a katt sa nday ci lu ko jar maa ngi doog a toj sa cottu nday maanaam ci toju tojin boo xamee ni maa maam <laughs> Ndiaye li ma la bëgg a wax lépp barki Seydina Mohamed maanaam asamaan si sax mu ngi taw barki salaatu fatiha baa ngi coupé maam mu ngi taw maam Ndiaye taw maa ngi mu ngi nii ci mbedd mi laa ne day taw asamaan saa ngi taw gis nga li asamaan si di taw yëpp ci sadata yaay laay ubbi rek mu doon fontaine ndoxum taw mi yëpp di wàcc ci sadata yaay Mariama Traoré mu bon mi nga xamante ni moo tax nga kat sa lëfal ndey ndax sa yaaya bon moo nekkoon euh, moritani daan ànd ay góor jigéen yayu maam Ndiaye Savon bandi la woon ca Mauritanie da daan cagatu Mariama Traoré cagatu la daan nekkee Mauritanie papay maam Ndiaye Savon dem na ba màkkatal mukarrama kaaba gi moo daw paa bi dafa dem ba Màkka kaaba gi daw sori ko papay maam Ndiaye Savon ba léegi amul photo bu mu dendee kaaba ga ca màkk maa ngi di wax lu doy waar xoolal xaalisu xeesal moo ko yóbbu màkk xaalisu xeesal la demee màkk yaa toj sa cot nday yow papa dinaa jéem a xam ni nga tudd nag jàpp ma sa tur yow papay maam Ndiaye Savon laa wax na ngeen ma vocal ngeen wax ma turam dinaa xëddee la fal ndayam yow papay Mame Ndiaye Savon dinaa bulli sa kooy bi dinaa bulli sa kooy bi ngay bunu Mame Ndiaye Savon bi dugal ci sa nday bi ba ci biir sa kooyu papa laay dugal ci sa bun mam Ndiaye man damaa mën a saaga de man doomu lébu laa man damay saaga ba <laughs> maam dinaa la saaga pare nga mais Mame Ndiaye li mu def est-ce que normal na yow màggalu Kazu Rajab nga yóbbu ay Zal mbay góor jigéen xaaral ma woo Zal Mbaye Zal mbay moom xaw ma nu mu lan lan non non non non jarul ma koy woo sax ñoom ñëpp laay toj seen cottu ndey léegi daal may leen ma ma promenade doxantu fël falaale sànneeku man bu may xuloo nag damay jël sama temps bu may xuloo damay organiser sama xuloo incha allahu rabbi maa ngi ñëw xuloo gi yow maam Ndiaye sama guddi tey ji ku la naxa ubbi la fal ndeyam soppay maam Ndiaye Savon du ngeen nelaw tey ni Moussa Faye def ba kat sa ndey fase la ni Moussa fay def ba kat sa ndey fase la jour ba ngay live ubbeeku sa data bi di feeñ sa data bi di xeeñ maam Ndiaye sa weeni sa cusu weeni nga kat sa ndey di ko wanees taxoo woon cité ngoos ñu naan déeta waaye nga dugg ci duus bi du sotteeku ndox yaay koo ba maam Ndiaye yaa toj sa cottu nday lii moo tax sa jëkkër ji mer booy lay sa data bi ngay jël marqué ko di sol ay baayu katt lëfal ndeyam màggal gi jot nga kat sa diggu lëfal ndey musóoru nii may wax ngay mel ni yaay faal yow yaay faal nga yow yaay faal yi dinañ toj sa cottu ndey baay faal yi dinañ xëddee sa lëfal ndey gis nga baay faal yi si sa lëfal ndey la ñuy xëddee maam yaay savon dinañ dëgg sa ndey ay kuur ba nga tëdd sedd guy sénégalais yi nag xaar leen ma abonné leen fii ngeen partagé ko ngeen waxa maam Ndiaye Savon maaka baaloon guerre bi commencé waat na gars yi sokono stress avec Mame Ndiaye Savon maam Ndiaye dinaa kat sa ndey zal mbay maa ngi ñëw kat sa ndey bul ma woo nag yaa ci gën a kat sa ndey ñàkk jom yaa ci gën a kat ñàkk jom yow ma yow yow yow zal mbay boo ma woowee dinaa tepp sa dëgg yow ndey dinaa ñëw taf sa photo zal mbay tepp sa lëfal nday góor jigéen nga góor jigéen bu kat sa nday may wax nga naa ay mbaxal mi ah ah mbaxal mi mbaxalu góor jigéen ku koy lekk ci am màggal màggalu sëñ Tuubaa ji màggalu sëñ Fàllu gi galas bàyyi mbeen boroom na am mu am tey la ñuy toj sa cottu nday ay kuuru Baay Faal la ñuy jël di ko dugal ci sa data yaay su ah, Suwaadu Géy de yaay joor la maa ngi jaawale yaay yi yaay joor mooy Suwaadu Géy moom dina dinaa toj cottu ndeyam yaayu joor mais joor dama ko jox euh, liberté provisoire joor jéey jox naa la drapeau vert maa na jox liberté provisoire ndax damay damay programmer xuloog Maam Ndiaye Savon yaa ngi dégg bu ma juumee wax maire Souadou Gueye dinaa toj sa cottu ndey c'est pas parce que dama bëgg ñu xuloo yow toj naa sa lëfal ndey yàq naa sa àdduna ba pare yow joor cagga pari awuskiti katakatee na sa data nday ba yow yow moom yàq naa la moom joor yow moom yàq naa la ba pare léegi nag maam Ndiaye Savon yow laay yàq ba que ñoom yàq Ndiaye katt sa nday foofu nit ku bon nga maa ngi ñëwaat ci yow maa ngi dem maa ngi ñëw da dama xaw a mar wax wax ju wax ju bëri baaxul nag dama mar dama bëgg dem naan lu sedd fël fa laale tuuti José man sama temps doo ko katt ndeem jël de temps dafa seer temps dafa seer yéen a ngi dégg yéen journaliste yi katt leen seen diggula la ngeen daggate ko ngeen daggate li ma wax ngeen katt ndeyam ci réseau sociaux bi yëpp aw ma jot pour def vidéo ay live laa lay defal Mame Ndiaye Savon dee leen def xam ngeen ni tey mooy premier épisode lancement premier épisode suba laay commencé nag di bëccëg gi lépp a leer may dox ci mbeddu Barcelone yi di jël ay immeuble Barcelone ay oto Barcelone di ko xaañ ci sa data nday bi maam Ndiaye Savon parce que màggalu suñ fàllu gi nga jël ay góor jigéen lii ñaaw na doomu jullit waru ko maa ngi gën a wax di gën a mar maa ngi dem euh, noppalu ku tuuti ba si kanam suma ma noppalu ko deuxième épisode bi mën naa ko def ci guddi gi tey ci guddi gi incha allahu rabi dinaa tepp sëlëfal nday tey ci guddi deuxième épisode Mame Ndiaye Savon bu ñu xëyee suba mboolem ña fa nekkoon dinaa toj seen cott nday ba mu des mami Cobra mami yow sama xarit nga bëgguma la saaga ay nday waaye bàyyil di wax ak góor jigéen yi waay bu la Mame Ndiaye organisé tee bu la woowee bul dem bëgguma laa saaga ay nday mais li nga def tamit du yoon waroon naa la dénoncé mais comme sama xarit nga yow loo def dama lay kay baal waa sama nitu démb nga moo tax damay fàttale ko bi may jugee fii Barcelone ah, di ñëw Sénégal nga may invité Thiès waaw ndeysaan mu yàgg loolu rafet waaw moo tax bëgguma la saaga ay ndey waaye yow bi nga demee gis góor jigéen yi rek ñuy togg maxal ñi danga nga waroon a am sa fullay bopp mami fulla la laa la xamee fulla ak fayda nga jël say bagax nga dem nga ñibbi mais waroo fa toog ay ay ay mbooloo góor jigéen ah ñoo xamante ni bëgguñu bëgguñu lu baax maam Ndiaye Savon di leen dooleel Maam Ndiaye di leen promotionnel di defal promotion waaye cott ndayu Maam Ndiaye Savon ak ay njabootam saram ndayu Maam Ndiaye Savon ak njabootam gars yi jazakalaaw xayran ba ci kanam mu yeggali